gannaaw bi mu wàcce foofu la ca Marseille ni ki dem wala barki dem Ismaël Koné bile mooy njëlbéenu joueur bi ñu signé ci kanam boo xamante ne dégg maam transfert la bu sotti am na tam yeneen joueur yoo xamante ne ñii di waa Marseille ñoo ngi leen di tàggat bokk na ci kii di Mason Greenwood Greenwood bi nga xam ne joueur Manchester United la bu ñu able woon ni ki foofu la ca Espagne ca Xetafe mu def fa saison bu rëy voilà jamono bii nag ñu yi diggante ñaari club yi ñu ngi en contact ngir xool naka la ñuy def ba dal di matal aju ci transfert kooku nga xam ne voilà mooy Mason Greenwood ki nga xam ne nag moom la wax Raphaël Varane bi nga xam ne moom dafa jógee ci équipe boobu di Manchester United ndax contrat jeex na kayit xibaar baa nga xam ne ne Como nekk foofu la ca Italie bëgg na ko Como nag mooy équipe bi nga xam ne Cesc Fabregas moo leen di tàggat ñu dal di ca Serie A ni ki ren jile maanaam saison bii di ñëw ci Serie A la ñu war a football mooy division bu Italie kii di Raphaël Varane nag mooy ki nga xam ne jamono bi ñoo ngi ci kawam ngir xool naka la ñuy def ba daal di dañ ci am dégo ngir daal di signé kii di olis bile kii di xibaar ba nga xam dañé tay ji lay dem fofu la amal visite médicale am moom tam xalé la ñaar fukki at ak ñaar la am ba yar mënuj pare na ngir fay li nga xam moy clause laboratoire bi tay ji lay amal li di visite médicale bu lepp soté dina di contrat bi voilà mom ki ñuy wax olis nekkoon fofu la ci Crystal Palace Rivaldo ancien joueur Barcelone la dafa daal di xam dañé kat Barça lepp luñu mën ak luñu mënul dañu ko def ngir daal di signé ki nga xam moy Nico Williams bile Nico Williams nak mu ngi won fofu la ci Athletic Club Bilbao jamono bi mu ngi ca Europe ba ànd ci ak Espagne moom kii di Rivaldo dafa gis na daal gone gi am na xarañte te nag ku war a dem foofu la ca Barça la Barça lépp lu ñu mën nañ ko def ngir daal koy indi nañu ko bàyyi xel bu baax a baax ci Europe bi ak la mu fay def loolu dina tax xëy nañu xotti ci seen tànk tubéy moom tam xale bu ndaw la ñaar fukki at ak benn képp la daal am moom kii di Nico Williams nekk rakk ci kii ñuy wax Iñaki Williams voilà Rivaldo daal bi nga xamante ne ancien joueur Barcelone la def fa jaloor yu am solo ku ñu ràññee li ma gis daal mooy gone gi baax na pour Barça te nañu ko bàyyi xel bu baax ca la muy def ca Europe ngir ñu war ko mën a signé yóbbu ko foofule Europe boobule nag ni ki démb xam nga ñi di waa Portugal dañoo ñàkk match xam ne mooy ab mayoom gannaaw bi nga xamee ne gone gi football bu rëy la dal def ni ki démb xarañte la wane ci jogante googule bi match bi jeexee kii di Cristiano dafa dal jël yërëm dal koy jox xam nga Ronaldo moom ba léegi dugalagul ci li nga xam ne mooy euro bi lay Kvaratskhelia nag ni ki démb dugal na noppi itam nekk homme di match voilà loolu nekk loo xamante ni mbégte la woon pour moom waaye Ronaldo dal koy ndokkeel ci loolu sëriñ Souhaïbou Mbacké borom xam-xam la bu yalla may ci walu ñaan képp ko da danga am jafé jafé wér wér-gi-yaram rawatina jàngoro yi nga xam ñoo lembé jamono bi lu ci melni ndoxum city bi nga xam ne daanaka gis ma ngi doxantoog mom mo xam ci ay tankam lay feñ wala ci kawaram wala fu mu mën feñ ci yaramam serigne bi fay fajj lolu nga xam moy neukatan ndoxum siti sëriñ Souhaïbou dina fajj hémorroïde ba ci sax new katan di jàngoro ji lembé lool ci kër yi sonna lool borom kër yi mo xam góor gi nga xam ne yegg wala ki nga xam da fay gawa yegg solution bi sëriñ Souhaïbou Mbacké la jokol ak mom mu lijeenti say mbir ci sutura nga dal di sant yàlla bi yamul ci lolu képp ko xam da nga bëgg ko ci wërsekk wala li nga bëgg moy bay bayre ba ci karange amna jaaru bayre amna jaaru ubbeeku ci walu wërsek ba ci jaarub karange serigne bi dina defar ay fas fas yo xamne dina dimbalé jigen gi nga xamne dafa taxaw manam mënul am dom ba ci listixar manam set say mbir ciambar ko ba nga xam fi ngay tek sa tank yi ak yenen serigne bi yalla may nako ci comme ñep dañ ko yittewo nak serigne bi dafa yombal seen mbir amna ñetti bes yu muy def dakar ci semaine bi kep ko xamne yittewo nga ko diko xaar ci dakaru aljuma samedi ak dimanche dina nek ci dakaru bu dé altina bi ak talata manam lundi ak mardi mo ngi ci touba alxames muy manam jeudi mo ngi fofu la ci xelkom ngir ak mom jëlal numéro bi woko légui légui 78 560 78 89 61 wala 77 328 72 31. Manchester United nak mom ki nga xamanteni mom moom wax Sir Jim Ratcliffe bi nga xamanteni kat jamono bi ci njiti la dal di bokk moom nag dafa dal di bëgg soppi li nga xamne moy Old Trafford dal di koy tuddé Ineos Stadium Old Trafford moy stade Manchester United bi nga xam voilà fa la recevoir seeni match waaye nag moom dafa gis ne daal li nga xam ne mooy yéene bi mooy dal di jubbantiwaat li nga xamante ne mooy stade bi changé sax tur bi mën na nekk wala ñu daal di jaay li nga xamante ne mooy tur bi tuddee ko weneen tur waaye itam defaraat stade ba mu dëppoo ak jamono ñu daal yokk li nga xam ne mooy billet yi su ko defee koppar yi gën a mën a yokk ci équipe boobule bu fekkente ne nag jamono bi gis ne daal loolu mënul nekk su boobaa li nga xam ne mooy beneen mbir bi maanaam pexe mi ñu mën a def mooy tabax stade bu yees voilà su fekkente ne daal gis na ne jubbanti stade boobu wala dégg nga maam jaay tur bi ba ñu mën ko dëppale jamono mënul nekk su boobaa moom dàqul daal di tabax stade bu bees pour Manchester United ndax kat dañoo soxla koppar yu takku te nag faw ñu daal di tabax stade bu dëppook jamono ticket yi daal di yokku su ko defee nag loolu mooy li nga xam ne mooy dugal koppar ci kër gi loolu mooy li nga xam ne mooy yéenewu ki nga xam ne moom la ñuy wax Sir Jim Ratcliffe bi nga xamante ni bu yàggul dara la jënd li nga xamante ni mooy dégg parti bu am solo ci équipe boobu la di Manchester United Moussa Niakhaté l'international sénégalais moom nag jamono jamono bi Olympique Lyon ñu ci kawam bu baax a baax moom nag jamono bi mu ngi foofu la ci Nottingham Forest waaye Nottingham Forest nag dañoo soxla ngir jaay ay joueur su ko defee nag ñu war a mën a a baax dinañu jógee foofu le ndax moom xam ngeen ne bu xarañ la bu am solo solo moo tax olympique Lyonnais jamono bi ñu ci kawam ñu ngi waxtaan bu avancé seen digganteeg équipe boobu la nga xam ne voilà mooy Nottingham Forest dàqu ñu sax ne fileeki bés yu néew wala ci waxtu yu néew li nga xam ne mooy transfert boobu ñu am ci déggoo bu loolu amee dina daal di dégg mam amal visite médicale am xaatim li nga xamante ne mooy comptable loolu nag yëggaguñ ca gars yi ñu ngi ci waxtaan ci jamono bi moom nag nekkoon na foofu la ca France moom kii di Moussa Niakhaté laataa mu fay jógee di dem ci Allemagne ga nga xam ne demoon na sax ba nekk li nga xamante ne mooy capitaine ci club ba mu nekkoon waaye nag jamono bi mën na delluwaat ca France googu nga xamante ni dëkkam la moom kii di Moussa Niakhaté l'international sénégalais mbir moomu kon dinañ way di ko topp amaana dinañ ci dal di dellu siwaat